yeesal yërmandeem barke alquran te am nañ ci yaakaar bu baax ndax jullit ñaan rek la am jullit ñaan rek la am dëgg jëfee for for noonu ko waaye yii de moo daal xel daal pour man <laughs> ah waaw fee dafa wóorul ay affaire de bàmmeel yii ah. Ah, dafa wóorul sëñ bi ah, ñu tëkkati ñooy wax dëgg jëm dëkk léegi dañu jël avocat ci boppam def ci kaso bi waaw wala ki doon di ki ki directeur prison bi sax léegi ñu tëj ko. te hmm? Guinée ñoo ngay àtte gaaya ña daan jàpp di tëkkati ñoom ñoo ngi leen di àtte yaakaar naa yéen a ngi koy suivre danañ àdduna bi. yëngal leen loolu trophée Guinée bi ah fii kenn yéen ñëpp kenn suivre ko Basiru xooloo ko c'est ceeb da ngeen war a informé wu di xam li xew ci ci réew mi di xam ci li xew ci ci dëkk bi di xam li xew ci sous-région bi di xam li xew ci àdduna bi Guinée kañ depuis septembre kenn xam ngeen ne am na ñu fa amoon lañ fa rey mat nañ téeméeri nit ak juróom-benn fukk jigéen ñi dañ leen doon rey ci public bi ci public bi ci stade bi ñooñu ah ñu ngi leen di àtte ñu leen di àtte projet bu gudd lay doon waaye ah alaysa allahu bi ahkamil hakimin te def na beneen àtte ndax àtte yii mën na dëgg mën na bañ a jóg waaye am na beneen tribunal bu mag ci kanamu yàlla ëllëg waaw dafay nag loolu rek moo am solo taxaw moom mooy lépp te lii ñuy def mu gën a dal xel waaw ku wax ba dugg ba ne ñii ci biti ñoo ba nga génn ah doo génne sa bopp sëñ bi sa bopp noonu la demee moo tax nañuy ñaan tey ñaanal suñuy wéyjur waaw yii gars yi wax ci dëkk dégg yooyu bu leen ci ànd bu leen ci dégg bu leen ci bu leen ko bu leen ko ñaanal leen seeni wéyjur dee leen dem ba ñu tëdd di leen ziyaara di seen bis ba ñu faatu dellu si ngeen ñaanal leen lu baax du doy lu baax du doy sunu mag ñii am na benn waxtaan bu ma dégg keroog ci oto mbay ma ma koy teg waxtaan bu yàgg la xam naa sunu mag ñi xool leen màggal li ñuy jàng ci ay kaamil xool leen te fi ni dëkk duñ jënd duñu génn seen seen jàng kaamil la waxtu rek ñu wàcc kaamil am na ñu nekk Diourbel ci kër gu mag am na ñu nekk foofu ca Touba màggal gàmm yi li ci jàng ci kaamil kenn xamul lu toll sunu ñaanu maam yi ay juróomi téeméeri kaamil junni kaamil ngay dégg te ñooñu ñun ñooñu ñoom lañ yaakaar waaye léegi bu dee ñoom la ñuy ñaanal ñun ñun lu ñu war a def nag ñun te ñoom la ñuy yaakaar te ñoom dañ leen di jàngal juróomi téeméer yow it xanaa mën ngaa jàng pour sa mbay wala sa bay noonu moo baax nit teewul ko nit moom teewul ko su ko defee ñu daaneel ci li wax sànq rek ne alxilaafatu zahiruha tashrifun wa baatinuha tëkliifun ma ne leen cëru yàlla yi képp ku ko yenu da ngay yenuwaale natt ya da ngay yenuwaale natt ya da yenuwaale fitna ya coono ya métit ya naqar ya rangoñ ya feebar ya te loolu sax ndekete mooy yëkkati góor yàlla yi waaw sëñ Moussa wax na ko nee na nattooy kerkeraanu lawli yaayi ku weddi laajal xayrul anbiyaa yi am na ñoo kon bi dégg woon <laughs> nattu mooy kerkeraan kerkeraan moom mooy escalier mooy li ñuy monté li doo la ngay teg euh, échelle mooy échelle mooy kerkeraan nee nattu mooy échelle góor yàlla yi ku wetti laajal xayrul ambiya mooy Seydina Muhammad yonent nee kenn ku nekk ci jaam yi yàlla ak lay nattu ci sa yàlla ni mu toll allahu akbar ci sa jëm yàlla ni mu toll moo tax su lépp di dox benn nattu dikkul seetaatal sa bopp gàllankoor yi xat-xat yi feebar yi déception yi trahison yi tristesse yi fitna yi xas yi saaga yi yooyu yëpp ay nattu la yoo xamante ni sama borom da koy teg jaamam ngir xool ban réaction lay am yal nañu yàlla xiir ci lu ñu yàlla teg rek fekk wutal nañu mbagg yu ko àndal ak xol bu ko mën a muñ yàlla nañu ko yàlla defal yaay alxabibu Mustafa imaamu saabirin sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy mbir mi yàlla wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa yuqaalu laka duñ la wax mukk illa maa qad qiila lir rusuli min qablika doo dégg lu dul la sa moromu yonent yi déggoon doo dégg lu dul la sa morom yi yonent yi la jiitu yoon jiitu woon déggoon معي ويقولون إنه لمجنون هذا ساحر كذاب هذا أساطير أولين حساب ما يقال لك دل وحمك ورسول الله إلا ما قد قيل لذل لك من جن وقعنا وقمنا للرسل نيال يوم التيا لك من قبلك نيول الجيدون sayyidina Adam lan la dal kaw suuf nañu wàcc ba ci sayyidina Ibrahim dañ ko mujjoon a jël def ko ci biir safara sa Seydina Nuux gis ngeen lamu mu def woote ba xam lu mag quatre-vingts personnes sax gëmuñu ko ana bu xadi ci sax ma ko bi lu mbokkoon amna na ñu alquran ana bas ni rek amna na au moins Seydina Noox amul sax quatre-vingts ñu ko gëm te ñu ko gënoon a weddi doomam la ak soxnaam waaw Seydina Moussa moom nag moo ci gënoon a sonn moo ci gënoon a sonn wallahi histoire am lu doy waar la waaw wala demee ci YouTube bi def naa ci waxtaan yu bëree bëree bëri bëri ci tundum Seydina Moussa yonent bu jara gëstu la yonent bi wax ne sallallahu alayhi wa sallam nee na kaada al quran an yakuna musawiyan nee na tuuti al quran di wax Moussa rek tuuti al quran di wax Moussa rek parce que un ci waru al quran histoire Seydina Moussa la wax ndax day yonent bu sonn day yonent bu sonn lu nekk jéem nañ ci ay bopp ci ay yu bon dem nañ ba wax ne euh, moo rey Haaruna rakkam te moom moo defal Haaruna teraanga bi frère bi bi gën a rëy frère defal ko moromu frère am rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli lu topp waj'al li waziran min ahli kan haaruna axi ba mu demee dajeeg sama borom daf ko wax ne ko mission bi damaa bëgg nga boole ci sama mbokk mii ñu bokk mission bi. moo tax ñu ne suñ la laajee li gën a rëy ci kaw suuf defal ko moromu frère am mooy ñaan gi Seydina Moussa ñaanal Seydina Haaruna alayhim assalaam euh, nee nañu moo def nañ ba. wax ne Seydina Moussa amul sax awra waaw bu ngeen xam maa yuqaalu laka illa ma qad qiila li rusulin min qablika yeneen bi wax nañ ni lu mu jur mu dee lu mu jur mu yàqu waxin la dama sarfu léeg-léeg nga dégg ñu doon wax ah jëwër dafa yàqule dafa alku yoon yàlla bu ñu soobu lu jëpp li nga dégg loolu ah dafa tardé yàqul sax foofu du du tekki dara du am dara bàyyi ko foofu rek ñu coxawaalu di lambar lambar yi. waaye du bënd ba wóoree rek lépp leer képp ku la mos a wax loolu di nga faj aajoom. billaahi ànd ak yàlla te dëppoo ci ma wóor Seydina Moussa wax nañ ko nii dara nga ma ne Seydina Moussa bi muy faatu kenn ci waa ay boppam fekkee ko jéem ko kenn. mala mala euh, malaaka yi ñoo ko gafal bàmmeel biñ ko gafalee ba pare dañ ko woo ne ñun de waaw jërëjëf ñu leen waa bar ñi yal na yàlla leen yow euh, malaaka yi biñ ko gafalee dañoo def comme gas gas di gas mu ñëw ñu ne ko ñun de dañuy gas benn bàmmeel mais waa ji daanaka yéen neexoo ngeen daal ci lañ jëlee mesure ñu gas bàmmeel ba mu rafet malaaka malakul mawt di ñëw jël ci parfois aljana yi tegal ko ci bakkanam mu xenc ko mu faatu ñoom ñoo ko sang sang ko jullee ko suul ko banu Israël mbokkam yi xamuñu sax ne Moussa faatu na donc il est mort loolu lu ko waral mbon mbon wax yu bon yu ko wax moo tax mu mujj dem ba ci leen Seydina Yunus borom laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alwalimin naam rek la dafa wax bi seen bëgg dee nu mujj rek dem ndeysaan gàddaay alquran di ngay dégg toujours inni zahibun ila rabbi wa ilaa Madyana axaahum Shuayb wa ilaa nangam foo ko déggee rek xamal ni gars yi fitnaal nañ leen ba ñu génn dem waaw Moussa histoire bu daw yaram la bu bopp lu doy waar la waaw. waaw Seydina Youssouf ku sonn la wala saar bu baax la soo nekkee ci xam-xam nii doo ko jàng waaw waaw gars yi bàyyi rek lañ ci xam. ah saar bi ba jeex. soo doon mënta jàng tamit nga koy déglu soo nekkee ci problème day dégg problème bu mu mënti doon problème mu njaboot stress jaxasoo kasoo fitna tëju këngoo ñàkk aajo yu faju jaxasoo lépp suur ba ñu dëkk ñoom ñii nag ñoom Abdou Fall ñi ànd na ci ay bayri bukkee ay xaw ma lan di déggoon lemat yooyu yooyu yëpp am na waaye dafa baax ci ay xat-xat ay problème saaru doy waar la soo nekkee ci fitna yi di ko jàng wallaahi lu mu métti métti yaay am ndam lu mu compliqué compliqué dañ ciy jëm waaw maxraj la kooku maxraj lañ koy woowee lu mu xam-xam yàlla dina la ubbil bunt waaw même suñ la waxee lu la jaaxal nit wax la soxla boo xamante ni da nga naan lii tey maa seeti keneen pour mu dimbali ma ci dama jàpp ñaari ràkk nga jàng sóor bi yóbbu ba mu jeex yàlla da la yàlla da la jëlewul sutura am na ñaankat yu mag ci loolu ci loolu rek lañ toog maa la ko wax loolu rek Yuusuf la ñuy jàng moom Yaasin ñoo xaw leen ci loolu Yaasin nag dafa am xaas yaam Yaasin moom beneen affaire la ah. waaw Yaasin moom moom leneen la dafa am dafa am ñu ay mbóot yu nekk ci biir daal boobu ay secret yu garaaw ak garaaw ak garaaw yu nekk ci biir wax ma ay 41 ak ay euh, boo ko jàngee ak yooyu de waxuma yu garaaw ci gàmmu googu laalal naa te ñetti alhamdulilah yi ñu wax mbóot yaasin la waaw ah. ah. soo ko jàngee avanage kuréel ñett la ci. dafa naa yaskuru ñett la ci mooy do ndax doo leen wax alhamdulilah waaw dégg nga nag soo ko yaatee soo ko liiree ñetti afalaa yaskuru afalaa yaskuru nag mooy ne xanaa ñoom mënuñoo wax alhamdulilah nga ne alhamdulilah nga jàngaat yàlla ne xanaa mën a wax alhamdulilah nga ne alhamdulilah nga jàngaat nga ne xanaa mën a wax alhamdulilah nga ne alhamdulilah mooy suñu ñetti alhamdulilah yi ngeen ñuy def ومن ورسول سيئات الأموات على قوة مختار مختار ما يقول الله ما برما من دين سرين أبو تبا تبا أك أك أك ساتلني برما أك من دين سرين بمن نمي على قرآن من كور فمن يتي الحمد لله من أنا كم أنا كم أنا كم ما كنت أبدا بني أخذ il faut nga am ay raccourcis jot amatul wallaahi daanaka bu doon jotaay yi sax doo wér yaa ngi daw rek moo tax il faut nga wut ay pexe pexe baax dafa waaw yaasin dafa garaaw yaasin dafa garaaw waaw seen maam Cheikh Omar sax ci la tëddoo Cheikh Omar Fouti maa la ko moom la ñu ma ma laaj ñu loo xam mun la jàngalee adduna yaa ngi jàppale adduna dafa garaaw am nañ am nañ góob yu garaaw yu ci nekk <laughs> li ñuy wax sax moo ngi ci yaasin maa lañ ko tey billaahi ma ngi ne fànn bopp nii waaye la ko woon waaw moom ci yaasin lépp ci yaasin lépp waaw Yuusuf baax na yaasin baax na yàlla ñu yàlla dimbali waaw moo tax tabarakallahu wax ji yàlla wax yonent bi ne ko maa yuqaalu laka illa ma qad qiila li rusuli min qablika wax ji daw yaram kon li ñu wax yonent bi yàlla dégg na ko te neexul yàlla ma yàlla jéggal te léegi nag mag ñi bu la bëggoon lan la li nga ma def yàlla naqari yàlla yàlla ku bon la laa ilaha illa allah moo tax tooñ baaxul parce <coughs> que leen tooñ de fekk naa fii génn góor bu ci ginnaaw góor boobu moo daan jaay sa xarit Pierre Diagne maamam bi ko tuddee moo ko daan jaay nag juróom benn dërëm mu ngi indil sama maama nag Mouhamed Ndieguene waaw nag nee bi mu ko mujjee jaayee ban war la ko jaayee xam nga loolu yàgg na mu fekk ko boobu moom ci cent et quelques années ñu waxtaan waxtaan ci nga def ci caawoon euh, lañ koy xaw waaw caawoon pël ci kaw noonu nekk yëpp ñu wax dëgg ab dëgg la woon ma dem ñëw def yëpp ba pare mu kontaan ndeysaan woo ñu ci biir néegam jox ñu xaalis bu bëri kontaan dëgg lool léegi nag euh, ma nit ma sëkk ci noppam ma ne ko waaw nee na ñëw bu gudd fan nga jékki nga sax téeméer mu ne waaw teg naa ci teg naa ci ay at yu bëri te maa ngi nii dara jotuma ma ne ko waaw gudd fan lu koy maye mu ne ma xanaa <coughs> te ku la tooñ ngeen jéggal ko waxtu defante mooy ma dégguma wolof waaye defante mooy da ngay def ñu lay def mooy defante <laughs> mu ne sooy def defal sa bopp rek sa bañ a def ci keneen ndax keneen xamoo ko ah. xamoo luñ ko waajalee xamoo lu nekk ci moom buñ tooñ ki ngay tooñ xamoo lu mu doon xamoo kum xamoo kum mu ne su la tooñee tamit jéggaleel ndax sooy fayu mën ngaa ëppal keneen fayu ci yaw soo soo fayoo nga juum ci fayu bi ëppal suñ la jëmee ci lislaam dañuy jëm nattu jam gi fan la toll ñu jam la lu toll noonu waaye léegi du du ëppee yow da ngay jamaat léegi nag suy def noonu ba àgg ca ras xol ba doo dee mu ngoog moom ngoog bi yàgg na mu ne ma bul tooñ te bu la te wattul defante baaxul day yàq xol mm-hmm. day yàq xel day yàq jikko da ngay dem ba sa iman day rocceeku ba sa wicc yàlla ci yàlla dimbali ci yàlla musal waaw ne ko di nga dégg lu nekk di nga dégg lu nekk waaye muñal muñal dem na ba pour mu leer nañ ñi dana ko isbir ala ma yaqulu seen wax yi wax ko ci alxuraan mukk mu ñëw seen jëf yi parce que xam na ni jëf yi amul jeexital jëf jëfa koy li léegi mu jeex mais wax dafay des léegi nga dégg nit kenn du ko ragal moom jëmmam mais làmmiñam la ñuy ragal fan laa ko waxtaanee woon lu yonent wax sër Ami Njaay la lu yonent wax ne ci yéen ci nit ñi mooy koo xamante ni nit ñi dañ koo ragal ndax bonam lu bon la waaw yàlla nee na wali man sabara wala man sabara wa xafar inna zalika min azmi al umur la min azmi al umur waaw fa man afa waxtaane naa ko dépp wa aslaha fa ajruhu ala allah di jéggale di jéllale di bàyyi muy jàll di effacé sëriñ bi wax na ma ko yàgg ca Paris mu ne ma nit ñi soo leen yu baax yëpp dana daj duñ yem si loolu boo leen gënee topp seen jikko yu bon yëpp duñ ko jël soo leen toppee dëgg dëgg yéeg a ngay mujj doon tey jii am na ñu bëri ñu mujjee bon te ñu baax lañu ñu woon dañ leen a poussé ci loolu ak ay jëf ak ay wax yu ñaaw ndax wattu leen loolu bu baax soo mënta jariñ nit ñi bu leen lor koo mënta jariñ bu ko lor léeg-léeg ñu wax ci nit man leen déer def leen daal amul njariñ waaye du lor kenn bàyyi leen ko doon gi dégg nga loolu leen bàyyi leen ko moom amul njëriñ du jëriñ kenn waaye du lor kenn kooku moo tax ki amul njëriñ du lor kooku gis yàlla nañu yàlla boole dimbali yàlla nañu yàlla boole jàppale yàlla na yàlla boole sutura Euh, lii yëpp pour wax leen rek ne leen lii dam ci kër gi xeebuñu ko gis nga seetloo leen dëgg yëpp ñiy wax taxawaay dafa yàgg ñaari dafa gudd ba seen ndey ba seen bàyyi seetloo leen loolu seetloo leen loolu gis mu ci rek du du bàyyam waaye sa ndey ak sa bàyyi luñ koy defal ci lu baax soo sañoon du arrêté mukk keroog li muy tàng tàng kii yëgul tàngoor wi mari ko yëgu ko doodu yëgu ko lu tax seen ndey lañ koy defal te leneen lu mu tamit ñu def ko waaye pexe amul pexe amul jébbalu ci yàlla rek fi ne kon nag xeebuñu li dal man dama koy wax toujours ñun dañoo xam ñàkk moo tax du ñu foowee dëj ndax dañoo ñàkk alaaj Mouhamed Ndieguene loolu la moo tax du ñu foowee dëj du ñu ñetti fan ak ñetti fan ak ñeent fukki ñaan duñ ko xeebuñu ko duñ ko foowee parce xam nañu dëj bi am waaw ndeysaan bëcc dem rek ndeysaan kenn ci xale yi ñëw foofu wallahi ñuy waxtaan waxtaan waxtaan waxtaan waxtaan mu ma ah sëriñ sa mbàkk man gën a mag daan naa tax ay problème bi muy dund waaye lu ma mës a dal su ma toogee rek sama rek bi ne ma diw lan la ma ne ko dara mu ne ma maa ngi ñaanal

sa papa ku baax la man xam naa ko te ñaanal na la ñaanal na la barkeem ah, dana dana dana la dal dana la topp barkeem dana la dal dana la topp vraiment dëgg la ndax lii li mbir mi tar tar maa ngi gis ci biir manifestation yërmande yàlla te xam naa ni sama baay bàyyiwuma ma ne ko moom boog góorgóorlu ni ko ni mu ko waxee ci papa noonu nga koy waxee sa yaay am na loo xamante ni kenn mënu koo yaa des vides yoo xamante ni ñoom rek ñoo ko mën a combler parce que am na loo xamante ni ñoom dong ñoo koy accepté ci yow loolu la yàlla dogal loolu yàlla moo ko def yay mënu ci dara bàyyi ci boppam mënu ci dara waaw papa ni muy mel ci doom. ak yaay li mu mel ci doom du papa du yaay yàlla la de la preuve mooy muusi sax noonu lañ mel ñoom moo tax euh, waajur yi ñu jar a bàyyi xel lañu ñu jar bàyyi xel lañu waaw nañ leen gën a yërëm nañ leen gën a fonk nañ leen gën a yërëm nañ leen gën a fonk nañ leen gën a dimbali nañ leen gën a jàppale waaw wax naa ko ci gàmmu bi ma ne ma ne gën a sa yaay ñaari junni yokkal réew yi dafa naqari gën a jox sa baay vingt cinq mille yokkal réew mi dafa naqari mhm. noonu la demee gëm leen leen ni yërëm gëm leen leen surtout léegi nit ñi ni ñuy dee dafa garaaw man yëg naa fi ñetti néew yoo xamante ni te dara jot leen kenn ku ci jëm moo defar reeram wax jëkkëram ne dem tëddi quatre heures du matin mu jóg di xaw lu muy wut gis ko mu xulli bëtam mu làmb làmb fekk dee na bu yàgg sukkuraatul deful dara naam beneen ci gaañu bi yéen di gën a xam nee dañoo daj ci néegam njëb la te ca ngoon ba fubal na ba ne bu subaa ñu fubalaat léegi yooyu moo xew moo tax yooyu ku ko xam da ngay bàyyi xel sa bopp te loolu jombul kenn ah jombul kenn ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk am nga ay dee yoo xamante ni dee bu la bett la dee bu naqari la ñii sax dañoo feebar mu tare tuuti mais am ñoom tamit daara jot leen ñu dee ñun ñii tamit c'est la même ndax kenn ku ci nekk mën naa am am na lu nekk ci yow te ko am nga am nga am nga benn cër sa biir boo xamante ni moo nga feebar te ko da ngay xëy rek nga dee wala sa ab jot même bu dul feebar bu dul daal sa àpp mooy jot mooy nga war a dee yàlla ne nàngam ci at ngay dund wasalaam moo tax nag nañuy def lu baax di wax lu baax di yéene lu baax di ànd ak ñu baax di sax ci lu baax loolu laa leen di dénk chaque jour ba loo ma ci nekkee tamit su dee dikkee nga xam ne dikk na accident yaa ngi fii lu nekk ni feebar yi feebar yi ñun dañuy gis yoo xamante ni doo mën kenn ci àdduna doo ko kenn waaw lu domaar la moo tax nañuy rafetal jëm ci ñëpp jox ñëpp cëw respecté ñëpp di def lu baax jëm ci yàlla yëpp bañ a topp nit ñi waaw dina maa ngi dina xam ne maa ngi gën a dof maa ngi gën a nangam maa ngi gën a nàngam maa ngi gën a nangam loolu defarul àdduna defarul àllaaxira soo feebaree rek wala nga dee rek da ngay xaritaam boobu dal nañu yàlla dimbali te jéggal ñu yaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam loolu dañ bëggoon ñëpp ñu bàyyi ko xel ñun ñëpp rafetal rafetoo àdduna amul solo te dund gi dund gu la dund gi nekk ci nekk mustaqim jëfe ndigalu yàlla yi te lu ci bàyyi teree bi loolu rek a fi nekk waaw gën daal surtout jamono yi moom tàng na lool dëgg yàlla ah surtout jeune Fadi moomu daan ànd ak Omar ñoom la daan àndal di ñëw foofu di ma ziar un jeune très brillant correct macha allah te moom kese ak waa ñu sant Diagne xaw ma nag Diagne ñu ngi tudd Aliou Aliou Aliou Diagne daaw rek ñoo bokk benn ngénte ànd taxaw photo nii kon frère am ñoo doon jàng doon waaw Samba soxna Fatou Ndiéguène 45 ans yëpp yor boutique bu florissante di liggéey di waaw correct waaw ndeysaan daara amoon njëriñ Kamu gi rek papaam nag la ko jëndal jox ko 300000 xam nga ni Cheikh Kane Ndiéguène bu Kër Issa. waaw conférence daaraam bi moo doon def sànq xale yi ci bëri moo doon xottiloo. waaw dafa leen ay colis vert blanc lépp. gis nga. te conférence bi samedi ñëw la. te samedi ñëw la façon lay def. tax bu ko dégg bu la la ci am solo tafsir ah yaa soxna xaar ak seeni i rakk yëpp loolu rek lañ leen di wax waaw maire bi dem na moo fi desoon doon sàmm li fi góor gi wàcce woon moom kenn la woon tey nag juróom benn ngeen wala fukk kenn doon doxal te yéen ñëpp ay doxal wàcc na fi héritage mooy juróom yooyu ma wax hmm? ku am diine la ku am jom la ku téye làmmiñam la ku téye tànkam la ku bëgg mbokkam la ñoo ko fii monde bi yëpp déglu ko yéen seen ndono moo ngi noonu bàyyi leen ko xel bàyyi leen ko xel mooy seen ndono ku am diine la ku am jom la ku téye tànkam la ku téye làmmiñam la ku bëgg ay mbokkam la juróom yii doo rek mu téye fonk ko sàmm ko lépp dina baax loolu lañ bàyyi te loolu mooy gën taal dëgg dëgg dëgg mooy nonal yéen ñëpp ngeen jàppante bëggante soppante nam daan doxalee ci yar ak teggin ak mbaax ak nekk benn ak bëggante ak soppante ak bàyyante xel ngeen téye ko bu kenn reer bàyyi sa morom bu kenn jekk jekkali sa morom ngeen suturaalante bu baax protégeante yërëmante maire bi moo naan lijjanti lépp tey nag yéen ñëpp war a lijjantante ku nekk lijjanti sa morom koo ci gis mu loof wala mu bool nga wax ak moom dimbali ko waaw kilifa du dëggee ci kër xel mën na jaxasoo mën na am ay maladresse ay njuumte ci kàddu ci wax bu amee tamit ngeen jéggalante jéggalante fii lañ koy waxee ndax ñun ñoo bokk ndoy ñoo bokk bàyyi ñoo bokk lépp te ñi nekk ñëpp ñoo bokk suñ lépp loolu la yàlla dogal kon nag ah, yëpp yaa ngoog ak mbaaxam ak yiwam ah dund na dund bu rafet ba yàlla jël ko dund na ci sutura ba yàlla jël li ko waroon nit def na ko. heure boo ñëwee fii topp bi ay doomi jàmbur bu leen di jox ñuy lekk di leen di jox ñuy naan ak xolam bu rafet man li ma mujj sikk ak moom mooy damaa ñëw fii jaar bi seet soxna so euh, soxna Tamsir ñaanal ko jënd fekk ko fii gerte la lépp gerte bu bari jërëjëf kabaar. gerte gu bare bare bari la tibb def ko ci mbuus jox ma ko ma yóbbaale ko ñu ñu bëri laa ci seet ma leen yaayu Tamsir moom la ko may kon man li may mujjee seetanteeg moom mooy teraanga mooy mbaax yàlla fi bee aljanna kon nag yëpp waa ngoog góorgóorlu leen bëggante nekk benn jàppante ngir jëm yàlla incha allah lépp dina baax ñun suñu xel dal na ndax li muy dund lépp rafet na fii këru jàmm la këru xéewal la këru sutura la këru wëññikaayu njàqare la ndax du kër courant bu ci kër ñu ne daw leen kër ëmbadi su courant lakkee ñu ne daw leen kër ëmbadi du jàkk amee problème ñu ne daw leen kër ëmbadi li nga fi may waxee hôpital amee problème ñu ne daw leen ci ëmbadi woo leen ëmbadi mu ñëw te sa baay bi muy bi muy mën électricité ñu ko mën fii ci réew mi ces gi bariwul daanaka moom Pape Baye Gueye nii la woon ak ku ñuy wax Diop million nga Ousmane a ngi yëngal bopp bi waaye Diop million moom mënoo aay ba xam ko xam nga ko Ousmane man ko doo ko xamoon ma mënoo boo xam wallaahi njëgeen amoon Diop million waaw lool yi moo ko njëkk doon defar fii ci dëkk bi lool i yi ñu daan def ci mur yi ci kii yi diggu néegi nii muy tourné yu weexu vingt kilos yu mag yu ah yu am laatu waaw te këru këru kii la daal këru muccukaay la da ngay gis kenn koo xamante ni guddeem neex na nelaw na ba fajar parce que dafa ñëw fii ñu defar ventiloo ko mu am jàmmam jaamu yàlla la gaa yaa ngi ñenn ñi ci des ñëpp ñoo seen i métier waa ji ñaata yoon la bëggal bëggal waa waa kii waa ngeen façon béy bu nekk dugal na ko sama waa kan, ji délivré leen ba taay féewee leen ba taay wala demewul noonu te ku mu féem nga dem sa yoon su mu tamponné rek nga dem loolu ci défense mbay ñaŋ loolu la doon jëriñ moo tax gars yi naan aayul man leen déet mooy def sonal défense ku mu tamponné ñaari yoon doo doo am njëriñ loolu moo nekkoon rôlam <laughs> gars yi naan dañ ko yu demee noonu Sénégal xam nga dañoo baax waaw donc bàyyi leen xel loolu fii kër bu baax la kër gu xéwlukaay la waaye kër gu wuññukaayu njàqare la loolu nag bu mu dañ mukk bu mu dañ mukk c'est un héritage ndono la na sax loolu leen ci def ci lu baax mu fekki bàyyi ëmbali fekki ajaa pëdd ba mu dëkk yàlla leen yàlla dimbali jërëjëf jëy bismillah tafaddal kontaan nañ bu baax masha allah ah keroog xam ngeen ni fi leen yemb tey dañoo ñëw rek ngir wan leen ne leen ah ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi boo leen nekk war nañoo wéttalante ak yéen wan leen seen sunu yéene ak sunu pas-pas macha allah tam si yéen macha allah ñoo ngay ñaanal bu baax moom it ah yàlla gën koo dëgëral gën ko sàmm ndax soxna si duñ ko miinul tamit miin nañ tam si yéen tam na loo xamante ne wax naa ne ci deret la mbaaxam yërmandeem ak surtout tabeem générosité am beneen mbir la kenn mosu ko gis mu mel déedéet day gérer rek rafetal wax lu baax def lu baax gis naa bi ñoo xamante ni daanaka ma ngoog wóor na ma ni moom fii waaw te dañoo yemale sax xew yi waaye comme cabine yëpp a ñëw fii festival sa defee nag ak tam seen jërëjëf jazakumullahu xeyran yàlla yàlla fay la yow en tout cas ñu apa? a yàgg nag ñu bëgg a yàgg waaw di kilifa bu mag kilifa bu pël bu mag rek mu ne baax na comme ci alaaji Modou Ndiéguène ngeen jóge ñu ne waaw mu ne loolu noo leen ko bëggee macha allah yal na yàlla gën a barkeel suñu xel dal na suñu yaakaar dooleeku na suñu mbay jërëjëf coordination bi ndax ñoom ñii ñooy magi mbooloo mi waaye ànd bu rafet la ñu ànd di dimbalante di xam ngeen mission moo jàpp sinon moo ngi fii ci wetu Tamsir ndax ñoom ay xarit lañu avant Safina Safina daf ko gën a renforcer waaye ay xarit lañu ay soppe lañu démb tey soog a ñëw macha allah yal na yàlla fay sa doomu ji suñ morom bi di jox wet gi bu ceeb bi nii Boubacar Ngom sama waa ji moo ngi di jub jëm waaw man léegi yàgg doom yaa ngi nii léegi ay paala bi kii moo ngi am sikkim ne xaw ma ah, xaaj Boubacar sama waa jaa ngi nii Mouhamed a ngi nii day doon sallallahu alayhi wa sallam donc yëpp ay jiw la yal na yàlla barkeel waaye jërëjëf jëf sëñ Maxtaar sama gars yi tamit tabarakallah wéetali nañ ñu xaaj Mouhamadou Bachir eh, moom xaaj eh, Biram bay góor gi ak sa jarbaat bi lu mu dëgg sëñ ma wax sama turandoo moo ngi day tabarkàlla tabarkàlla xam naa koromo na te tamit gée na de gée moom gars yi moom ay ay jiwlu maa ngi laaj rek moo tax dafa tabarkàlla dañuy dañuy xëcc ñëw di na yàlla fay leen yéen amin amin amin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jërëjëf Camara kon allah sunu yi wétali nañu bu baax jàpp téye bu baax ba mu rafet ba ñu ñëw ndax ñoom rek a fi nekkoon te way yi way yi yéene la daal ci wayantu way yi yéene la donc bi ma ñëwee dégg naa niveau bi xam na yooyu de naa ne bu gàmm gu mag gu mag bii gàmm gu mag a mag bii bu kër laaj way naa ko man ba alaaj ba dafa amoon maa way waaw gamu go makki way gamu go makko makki way na ko fa def man ni a'udhu billahi ba way mama laaj way chef way mama laaj man ni to boobu élève la waaw chanson xam naa ko de chanson xam naa ko de loo ci def xam bien que nag way évolué na way dafa évolué na loolu tamit loolu xaqiqa la léegi dafa gën a kii technique ñun suñuy way nii la woon daal yéen seeni way nii la waaw dafa am ay affaire yu ci def mais ñun suñu way nii la dañuy jël téere bi teg way bu but ba but ñun téere rek dañuy wax def leen nii rek yooyu te tuuti la dañuy way rek muy daal

waaw yooyu da ngay jox doomu duut loxo nag waaw waaw góor Pape Lagne est-ce que yow ay Ablaye waaw góor am nga soxna kuy sa jabar waaw góor yàlla yàlla sàmm la jërëjëf macha allah yàlla yàlla fay la jiw jërëjëf Pape Gueye jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla fay leen yow. ñëwee rek la dégg ñëw na waaye ngeen yëpp teew na ñëw macha allah Ousmane nan moo mën na yow macha allah baaxoon nga bu waaye nag si si doomu ci seeti de dégg naa seeti baaxoon na de ah ba seeti seeti dégg naa baaxoon na de waaw waaw waaw waaw mu ngoog la. séntu ma ci seet yi Ousmane séntu ma ci seet yi dégg naa baaxoon na baaxoon na bas bas bas du mag ñala kon sëñ Bay ñu ñu ñaan incha allah ko defee ñu ñu julli soog géew bi jox na incha allah taala waaw waaw mu ne ñoo ngi nuyu tamit Thiam waaw Ousmane Camara ñoo ngi koy nuyu moom bu baax di ko ziara kon incha allah ñu ñu jël liggéey suñu paree السلام علیکم و رحمۃ اللہ